ziar ziar salaamaaleykum sénégalais yi sénégalais monde entier man Ama Baldé ku ma gis xam ni gëj naa gis may wax si vidéo wala ma nekk si internet bi di wax waaye dañoo doon jullit gëm yonent bi salallaahu alayhi wa sallam gëm yonent bi salallaahu alayhi wa sallam gën ñëpp gis na lu mu tagg yonent bi gis na lu mu wax si yonent bi kon loolu ku mu doy rek amul ku muy doy yonent bi salallaahu alayhi wa moo gën lépp. gën suñu yaay gën suñu papa gën lépp gën suñu njaboot gën suñu sëriñ si sax sukk jub kon am yoo xam ne xamatuñ ban monde lañ nekk xam ñun nekk ñun duñu saaga waaye am nañ droit wax moo gën lépp lu ñu am muy sën si nekk fii mooy ñuy sukk jóg jóbbaloo ñoo ñëpp yoonu salaa salaam moo ñu gën moo gën suñu papa gën suñu yaay xoolal maam borom Touba boo ibbee xasaay ji lu muy tagg yonent bi salaa salaam da koy tagg tagg tagg tagg ba ngay yaakaar kenn kenn du Ahmadou Bamba borom jaami kooku moo mun a nangu Seydina Muhammad kon léegi ñu lan la ñuy defee kuy julli Seydina Muhammad nay julli kuy wax Seydina Muhammad nay wax en tout cas war nañoo wax war nañoo wax war nañoo jéem war nañoo manifester. sa waa jaxate dama lu ñaaw ndax yonent bi képp kuy min kuy dund si àdduna rek ah képp koo xam muy dund rek ah muy doomu aadama rek ah yonent bi la gën ndax yàlla moom muy gën gi muy def. yow la nga bëgg dindi loolu teg ko yow du est-ce que jullit nga sax cent pour cent mais nag demal àddina sa kanam lu lay duma Sénégal dinañ ngeen di wax nag mais boo leen bu gisee bu ñu waxee sëriñ si ngeen di ku nekk di jóg di dal kon bu ñu waxee si yonent nga